asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi baax di leen ziar tey di talaata fukki fan ak benn ci weeru sulier dëppoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru tamxarit ñu dem ci dëkk bu sell ba Tiwaawoon ak lu ñeel liggéey bu bu Tiwaawoon liggéey bi daanaka yegg xabaar yi mu ci la RTS ñi nga xam ne kon ñoo di comité bi nga xam ne ñoo yor wàllum liggéey bi ci njiital Mouhamadou Makhtar Cissé nekkoon na jëwriñ nekkoon na itam euh, ci mujjug président Macky Sall moo yoroon moom moo jiite comité bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi àndoon ak yeneen kilifa yu nekk ci commune comité bi yor wàllum liggéey bi ñëwoon gisee ak ilimaan jëwriñ réewum Sénégal Ousmane Sonko doon ko nag rendre compte liggéey bi fi mu toll ci aju yëpp ci kàdduk Mouhamadou Makhtar Cissé moom i kon mu daal di xam ne liggéey bi daanaka yemb na ndax fi ne ni ñu ngi ci à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci travaux yi jàpp nañu daal fii ak kon ña ak septembre fas nañu yéene jébale caabi yi muy ci jamonoy mawlidul nabi jébbal caabi nag euh, jëm gi tedd ji di laxe général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na càggalo te ànd na ko biir kon comité bi di xam ne kon euh, jumaa ji kon daanaka ges bëreetut ki nga xam ne moo di Mouhamed Moussa Cissé kon di leeral na jumaa ji ñu ngi ko daanaka ci watoole ci ñaari hectare ak lu topp bokk kon loolu mën naa nekk jumaa ji gën a rëy ci Afrique subsahara loolu nag muy leer na sax du woon objectif bi ñu tàmbali waaye ñoom di ñëwee di àggal liggéey bi dañoo bàyyi xel li nga xam ne moom la jëm gi tedd ji di Cheikh Sidi Hadji Malick ci naaloon ak itam ginnaaw bi doom ju baax ji wuutoon ko fi di sëriñ Abdou Aziz da naaloon ñu boole ñaar yëpp kon ngir mottali kenn ku nekk seen yéene ñooy jëm yu baax yooyu kon loolu moo waral jumaa gi na ni daal kon wax nañ ne kon septembre bi ñu dëdmal daal ci jamono yi mawlid bi fas nañu yéene jébbale ah, jumaa ji jébbal ko kon ki nga xam ne kon moo di ku tedd ki sëriñ Babacar Sy jëbee ki nga xam ne moo di kon sëriñ Babacar Sy Mansour bu ko defee nag kàddu gu mujj gi moo ko ci kañ lañ ko ubbee gi caaju kon jumaa ji bokk nekk jumaa yi nga xamante tamit làmboo na ay yu bëree bëree bëri ci yu bëree bëri xam ne am na ci ci wàllum courant ak wàllum ndox ak wàllum climatisation yu caaju jumaa jumaa la joo xam ne mees naa jàppale daal euh, gu euh, maanaam gu làmboo itam euh, ab ràññeeku a ràññeekoon la na doon ci réewum Sénégal kon muy grande mosquée bu Tivaouane daanaka kon liggéey yi egg na ñuy ah, xam na ne kon septembre daal daañu jébal caabi yi kon fat nañ ko yéene ñoom comité bi septembre kon ñoom comité bi ne fat nañ yéene jébal caabi ji ah, ku tedd ki ngir nag ñu xool ban bis lañ ubbi ci njeexal tala waxtaan yi tamit Mouhamadou Makhtar Cissé kon daal dinay leeral ginnaaw bi ñi ngi xaar tam buñ ubbi invité yoo xamante ne daañu leen invité loolu nag mu jaar ci mbirum gouvernement bi ki nga xam ne moo di Sonko nag daal di kon rafetlu lool lool liggéey bi kañoo ko lool daal waaye itam rafetlu tamit tolluwaayu liggéey bi wax ne daal euh, euh, fat nañ ci yéene kon gunge ci euh, bi ci lépp loo ne war na état foofu sax la Ousmane Sonko leer na kon ñi ngi xalaat ngir taxawal benn ministère bu ñuy wax ministère des cultes moo yor lépp lu ñuy wàllum ci réewum Sénégal su ko defé nak lepp lo xamné diiné diine nako ci aju mom ci réewum Sénégal ministre bobu kon moko sallo sàlloo wax itam ne daal budget bi ñu war a tegaat ngir liggéey réewum Sénégal bitse bi ñu war a nattaat budget lay doon boo ci béral loxo diiné lo xamné kon ñom lañ koy natal ngir di man di waccok bëgg-bëggu fa diiné ci réewum Sénégal ci lu ñeer kon euh, lu ni mel ndax dafa japp na dal kilifa yi diiné ci réew mi dañoo dañoo kon mérito ñu natal leen ci réew mi lo xamné mo doon seen wal ci lepp lo xamné ñala dox yi ndax Sénégal réew la mo xamné kilifa diine dañ ci am solo kon ministère des cultes Ousmane Sonko wax na kon bokk na ci seen xalaat ñu taxawal ko ci réew mi ngir mën a wàccoog ba kilifa diine nga kon kooku mooy sàlloog lépp lu dox ñu diine ci réewum Sénégal moo